la la question de l'immigration ñu ko doon wax sànq. Mm-hmm. Euh, c'est c'est encore une question très complexe. Mm-hmm. Euh, war nañu éviter di tomber ci ay ay ay clichés. parce que bu ñu tombee ci ay clichés rek on risque de parce que après au en définitive li am solo mooy yan solution la ñu war a mën a mettre sur la place. oui mm-hmm. euh, parce que sinon dinañ fi toogaat. dans un oui, an dans deux ans. Oui. les mêmes problèmes vont se poser. mais gis nga li ñu mën a wax ci immigration. dafa am loo xamante ne Sénégal ba léegi bàyyi ñu ci xel mooy réew il faut mu ne man type de société bi laa moom laa bëgg à partir maintenant de la réponse à cette question li nga war a njëkk def xalaat ko te ñun Sénégal ba léegi mosuñu ko def depuis 1960 ba léegi mooy le Sénégal n'a pas de modèle économique mm-hmm. te modèle économique moom moo lay wax yow je prends un exemple boo leen xoolee Liban il plus de Libanais à l'étranger qu'au Liban. maa ngi nii bien ne ci àdduna bi ñoo ëpp junni yoon le nombre de libanais dans le pays. loolu seeni modèle la donc ñun ou bien on décide de dire que le Sénégal. doit seen modèle. ah non est-ce que c'était pas. non c'était par rapport à la guerre et tout man de ma wax la. Mhm. c'est pas mais quand même ils ont des métiers ah la question du modèle économique bokkul. li tax ma joxe l'exemple du Liban. Mhm. xam nga. la moo tax Liban bindoo noonu je dis que seen modèle la c'est parce que avant que Liban di am indépendance le choix de la France à l'époque c'était de dire que boo leen xoolee le commerce mhm. il était maîtrisé par qui par ceux qui parlaient l'arabe mmh. quand la France a voulu imposer la langue française comme étant la langue du commerce li mu def daf ko jaarale ci Liban mhm. bi mu demee nag ils ont défini un modèle boo xamante ne qui permettait non seulement au Libanais de présent sur l'ensemble du continent boo leen xoolee amul benn réew ci biir Afrique boo xam ne doon fa gis libanais mm-hmm. li ñu def mooy on a par ce biais réussi à remplacer la langue arabe comme étant la langue du commerce ñu jël français imposé ko mais léegi nag bi ñu demee ba Liban am indépendance le modèle était de dire que nous allons bâtir l'économie du Liban non pas de façon endogène mais à partir des Libanais yi nga xam dañuy nekk ci biti loolu moo tax on a beaucoup ñun Sénégal on n'a pas encore réussi à peu près am ay métiers comme les portugais ñun amaguñu modèle économique hmm. te modèle économique moom moo war a sous-tendre yow c'est politique publique politique publique nag sur le plan social moo xam éducation la moo xam santé la moo xam naka ngay transformer say ndaw ban type de sénégalais nga soxla ban culture nga leen di inculquer l'apprentissage de la propre culture donc des citoyens sénégalais. gis nga loolu lépp ngay constituer pour avoir le modèle de société bi nga xam ne moom mooy mën a permettre ngay traiter les questions. Mm. mais loolu fekk amuñu ko xamalaan moo ñu dal mooy en fait on réagit dañuy toog rek ñu gis benn coow am na ñu ne boo léegi il faut qu'on fasse une réforme il faut ñu defee définir benn politique publique pour mën a ko euh, jagleel telle ou telle question mais loolu en réalité du ay problème parce que c'est des solutions qui viennent pallier des problèmes alors que ce dont on besoin c' de bâtir un modèle un projet de société boo xamante ne mooy mën a tax ñu ne suñu doom yi sachant que tey Sénégal nous sommes aux alentours de quatre cent mille étudiants ñooy gën ci suñu université yi en deux mille vingt cinq deux mille vingt six on le nombre d' étudiants à sept cent mille te ñëpp xam nañu tey bu weesoo ay quelques rares écoles yu mel ni ay Prytanée militaire wala ENA wala Polytechnique la plupart des étudiants qui sortent de nos universités sont voués quasiment à l'échec parce que amuñu métier jàngaluñu leen lu ñuy mën a def comme liggéey da ngay gis le niveau finalement de l'enseignement supérieur a tellement périclité que tout ce bon monde day ñëw sur le marché du travail mais xam nañu duñu am liggéey mais donc bu ñu amulee benn modèle boo xamante ne moom moom war a mën a créer des réflexions à travers des schémas directeurs sur chacun des points ça pose problème